dal leen ak jàmm mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di ziar di wax képp kuy gën ci chaîne bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bës bi ndax vidéo bu ñu dugal rek nga bokk ca ñu koy njëkk a gis wéy leen di like wéy leen di commenter également te di partage vidéo yi c'est très important mbokk yi dañuy wax ci Ismaïla Sarr Ismaïla Sarr nag li ñuy wax ci moom mooy que lu tax mu refusé euh, l'offre du Barça en 2017 parce que euh, at bon noonu Barça bëggoon ko recruter donc bi mu nekkee Metz parce que Ismaïla Sarr c'est un joueur bo xamante il est explosif nek fofé ci Metz machallah diko toj donc euh, Barça gis ko bëgg ko. mais lu tax Ismaïla Sarr exactement demul fële ci Barça loolu lañ leni expliquer ci vidéo bi mais dama leni wax ngeen abonné te di partage vidéo yi c'est très important pour ñun euh, parce que nous di mën jot suñu vidéo en temps réel parce que à chaque fois dañuy def ay vidéo di def wax ci histoire jour di analyser donc kon dama leen di wax ngeen abonné te ngeen activer cloche bi ndax du ngeen rater suñu yenn vidéo donc mbokk yi lu Ismaïla sar demul fële ci Barça ci atum 2017 le mercato estival 2017 Ismaïla sar jot na offre Barça ci jamono boobu Ismaïla Sarr mi ngi nekkoon foofee ci club boobu di FC Metz macha allah di ko toj a beaucoup de club yoo xamante ne ñi ngi ko soxla woon ndax gisoon nañ talent bi nekk ci moom jour bu explosif am vitesse percutant mën dribbler son phénomène Ismaïla mais ci an moomu Ismaïla Sarr dafa refuser offre bi ko club bi di FC Barcelone defoon c'est un grand club Barça ko ko wax wax que ne club boo xamante ne am na histoire mais Ismaïla Sarr daf koo refuser mais lu tax d'après li Ismaïla Sarr jote wax lu tax demul Barça mooy que nee na bëggul woon dem barsa di toog ci banc bi du am temps de jeu et que bëggul dem également di dem ci équipe réserve bi te loolu dëgg la ci dernière année yi yëpp gis nañ que ne am na sénégal yu dem foofee ca barsa ñenn ñi ci équipe B bi lañ ñu nekk lañu lañu nekk et que mooy loolu ñu fa temps ku ci mel ne Moussa Wagué ku ci mel ne Moussa Ndiaye ku ci mel ne Alpha Rissa Jonku Jonku instant bi mi ngi foofu ci Barça atlétique bi donc du ñu joué et que Ismaël Sarr bu ko bu fa demoon c'est la même chose euh, tey ji peut-être que kenn dootu ko déggati mais heureusement que ba demul Barça parce que Barça euh, équipe la boo xamante ni boo fa demee mën nañoo war dañ lay jàngalaat leneen di la yóbbu ci équipe kii bi nu mu tuddati équipe réserve bi te yow sa talent dafa ëpp loolu et que Ismaël Sarr il a raison ba demul Barça donc lolo taxone neena mu daal choisir dem ren pilitoo pilitoo ko mu dem fële ci Barça ndax xamone bu fa dem mënoon nañ mën nañ koo ci bi donc du am temps de jeu carrière am mën naa yàqu wala ben ñu yóbbu ko ci équipe réserve bi te ok carrière mën naa demee neneen donc c'est ça lolo taxone Ismaïla sar demul signé fële ci Barça également lolo tax mu daal refuser offre bobu di. Euh, club bi ko Barça defaloon et que aujourd'hui euh, dem na Rennes ba mu nekkee Rennes na ko macha allah il a fait des beaux jours foofee ci stade de par la suite ci la club yu bëri bëggee mu dem fële ca Watford donc Watford championnat bu Angleterre et que instant bi ma ngi fay def ay lu baax a baax mais on le souhaite mu jóge fa parce que deuxième division du du du du du du niveau et que niveau on na deuxième division dañ koy ñaanal mu dem ci club boo xamante ni première division la nekk et tout ça donc mbokk yi lañ leen di loolu dina wax wéy leen di like wéy di commenter ja ngeen jëf